am nag mbégte bu baax ndax daje woon nañ daaw ci fan yi ñaanoon yàlla yàlla dimbale ñu ñu màng fan yi leer yi ba jeexal ko ci jàmm ba dajewaat loolu yàlla may nañu ko ba ñu dajewaat fii tey nit mën ngaa gëm yàlla jaamu ko mën ngaa gëm yàlla sax di ko sàkku mën ngaa sàkku sax di dox di wut ngërëmal yonent bi waaye ndax di ko am ndax qualité yi yonent bi soxla ci ci nit pour mu yeggal ko fi mu yegg ndax mi ngi ci yow waaye alhamdulilah bi ñu yàlla wërsëgalee ku mel ne moom mu dox sayru mu dox wut yàlla dox yón dox wut yónent bi sallallahu alayhi wa ba ñun ñëpp même ku nekkul ci biir tariqatu murid amoo benn sikk ci ne yegg na fi mu doon wut yegg loolu moom kenn du ko sikk ak loo ak koo mën a doon ak loo mën a doon da nga xam ne yegg na Cheikh Moustapha Imam léegi wax na ci Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci bàyyi xel gum koom bàyyi xel ca boobu soreegul sax ci yu bari loolu li muy wane mooy ne nit ñu baax ñi ku ne nangul nga sa moroom li mu doon cër yi yàlla moo ko yore ku ne la yàlla def ci moom soo bëggee noppul dangay may sa bopp jàmm ca loola parce que ki yàlla defal li mu ko defal waa moo ko boo ko boo ko meree wala boo ko bugut dangay ngay xalsee yendu bëccëgu coono rek waaye munoo ci dara mbàkke yàlla bi ñu wërsëgalee nga nekk suñ biir mbooloo dëgg-dëgg maa ngi lay sant mbooloo mi ñëppit ñu ngi lay sant parce que sa pas-pas ci mbooloo mi kenn sikku ko suñu diggante du politique téewatu ko ndax yi ñuy waxante maag yow loolu bu fekkoon politique rek la duñ fa yegg waaye maa ngi sant yàlla bi ñu yàlla wërsëgalee nga nekk nit ku gore. dama naan bokk naa ñi sëñ Mountakha gën a bëgg ci àdduna loolu yaakaar naa ñëpp seen nañ ko bu ma tëgg dina xam xam naa ko yàlla xam xëccoowuma ci njëkkantewuma ci moom bëri na ci journaliste yoo xamante ni yàgg naa àll ñoom dem ci moom muy wax ñuy dégg sëñ Bass Abdou Khadre sama diggante moom ci cofeel ginnaaw bokk gi ak bàyyi gi doon ñëpp xam nañ ko kon amul problème gis président déedéet wallaahi wallaahi amul problème boobu yàlla seet na ko mais man Modou Ndiaye la encore une fois dama koy wax te duma bennoo bokk yaakaar nii APR suñu histoire bi wax naa ko. dafa am sama benn xarit bu ma àndal dem jaal ji sama waajur bu baax boobu Cheikh Ahmed Tidiane Niass yàlla yàlla fayal ñu ko yàlla yokk ko mu ah, naa ma ne man may Rahma man maay mouvement loolu neex wax maay mouvement Rahma loolu moo nekk xam nga waxoon naa ko. benn ancien premier ministre moo waxoon ne ko addiya ji ginnaaw nekkuleen fi woon tey yéen fi suba du ngeen fi nekkaat waaye keneen ku fi nekk dara ñu soxla kon duñ dégg ancien te bis bu ñu xëyee rek xam nañ keneen koo xamante nii bokkut ak dëgg ñeen xamul bu njëkk te liñ doon yàlla daf ñu koy def ilaa yawmi diin kon dañuy dégg saa su nekk sëriñ bi. wax naa la ko bëgg démb. damaa gëj politique damaa bëgg politique. loolu moo tax tey moo woote woon fii ñu bari ñëw. suñu mbokki pël yii ma woo leen. parce que politique ku yokk da ngay wàññi. te su ma la waxee dama bëgg rek. damaa war a bëgg la yokk.